على خير منيب ولا سكيل الخلق mbokku internet yu Touba Info nii lañ leen ziar leen tey nag ñu ngi fii si Touba di màggal 18 safar nekk départ euh, Cheikhul Khadim ba nekk bis bi nga xam ne si ni moom la demoon liggéeyalee ko boromam mu départ ci Mbacke Bari Jolof Serigne Touba nag ku gis li xam ne teyam ju nekk day gàccal démb bàyyi Serigne Saliou ba ñu koy santati bu baax moom Cheikhul Khadim di ñaanal Serigne a xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ànd ak wér-gu-yaram ku xool woote Masaalikul Jinaan bu yàggul tey nga Touba lu gën di woote mbooloo mi di gën di takku xam naa damay daal di ànd ak sama caméraman indi leen lépp loo xam ne si ni mooy am ci màggalu 18 safar gi tey jii ànd ko euh, waa Touba Info ñëpp dix safar bi mooy liggéeyal yàlla rek am solo ndax Serigne Touba maanaam coono bi mu dajoon keroog bi muy dem ci géej mu koy teg coono mu dem màggal bis booba coono yi ñu ko doon teg mu màggal bis booba dem ba tey àdduna bi yëpp wuy ko kon liggéeyal yàlla liggéeyal islam rek a wér loolu loolu loolu doon nga maa ngi tudd Seydou Ba jóge ba mu Mourtani nag. waaw jaana ngir màggal kon sëñ Sidi mu waaw sëñ sëñ waaw sëñ Mountakha Mbacké moom la ñuy ñaax mu yàgg fi loolu te wér sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu te wér waaw murid yi ca kaw ca kanam nag jërëjëf Serigne Touba. di rafetlu bis bi ak seen teewaay. di ñaan ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak sëñ bi ngeen yàgg ko fee teew dañ yàgg yi fee ñëw liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi nangul ñu ko ci ay ati at sëriñ bi de dem ne yow ma xarajtu sabti saa min yasar fi xidmatil muxtaari fi sari safar yan bi ko suñu borom ne bëcc xutbu samaan yi wala yi ñëpp biñ taxawee kenn da koo atnul suñ borom xamal suñ borom suñ tubaa xamal suñ borom ne ko boo ma téyelee sama roogi man suñ tubaa attan naa ko moo waral tey bis bii. waaw ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa radiyallahu an Cheikhil Khadim wa babil muridina Ibrahima Fall maa ngi tudd Ahmadou sant si waa bàyyeekoo ba Ndakaaru Parcelles Assainies waa du nuyu suñu kilifa maam Cheikh Omar Ndiour aboori Dialloulahi waaw di nuyu mbooloo yëpp lépp rek sant yàlla la ndaxte bés bisu sant yàlla la ku tedd ki loolu la woote ku tedd ki dafa waxoon muy Serigne Touba Xadim Rasoul mu ne sama bis bi bu ñëwatee fu mu fekkati waaye di ko dalee ginaar ba si gëléem lu waaye man rek ñi sant la ma ko yàlla kon segam moom loolu la woote a ah wax dëgg yàlla kon coono yeeg mboolem lu si nekk rek ñun lépp lu mun mënti am rek nañ sant yàlla fekk ñu ngi ciy sant yàlla rek ñun ñu ngi ci li sëñ bi bëgg waaw ndax moom loolu la woote ci bésam bii nii loolu mooy li ko yàlla jagleel si biis bii nii te loolu suñu borom di wax ne waaw wa lu min ibadiya shakur kon sant dafa am solo trop waaw moo tax loolu nag suuf saa yu nga xamee ne nag teew na muy bis Baye Fall moom ku ne xam na leen seen taxawaay mooy gindi jaam ni tegtal leen waaw dalal leen ak jëflante moom si mboolem xeetu mbaax loolu moom mooy seen taxawaay ci bis bi waaw lépp nag loo xamante ne safaan la mbala luy lor la kenn ku ci nekk rek ñu moytu ko wax dëgg yàlla. Hmm.